mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM dal leen jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu wi euh, tey nag ñu war a waxtaanee ni ngeen ko déggee mbiram police euh, nationale bu Sénégal euh, la waral loole nag mooy xam ngeen ni ci weer wi la ñu doon fàttaliku 16 février. Euh, mbiram euh, policiers yi nu faatoon atum 1994 mais ñu woy di leen joxoñ baram tuuma fan yi jàpp gi ñeel euh, ay militants yu parti Pastef ak ay activiste ñu joxoñ ci itam police boobu dem sax ba naan dañoo tàbbi tey ci làngu politique bi procès bi am barki démb dégg nañu yooyu les kàddu ñu leen di tuumaal di leen itam joxoñ ci yeneen mbir yu bari ñu bëgg nag def taxaw seetlu ci tolluwaayu police bi waaye xool police euh, démb euh, lan moo xëy na euh, ca amoon wala daal ndax lu ñu mën a méngaleeg lii di xew tey am na fi ñoo nag am mbégte dalal ci kii ñuy faral muy dégg di dégg mu leen di waxal di ki jiite association de policiers à la retraite monsieur Cheikhouna Keita ñu ngi lay nuyu nga nekkoon itam policier dalal ak jàmm ci démb ak tey soxna si maa ngi lay fay bu baax di am mbégte ci invitation bi nga ma def di xabar ne man maa ngi tudd Cheikh Ma Keita euh, brigadier chef de gardiens de la paix à la retraite la di jiite mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal tout corps confondu. Mm-hmm. alors tey ñu war a waxtaanee police ni ma ko junjee léegi ñu leen di dégg tey ci mbir yu bari est-ce que euh, jàpp yi euh, ni ci police di liggéeyee. Euh, jaar na yoon ndax dégg nañu procès bu am barki démba ab avocat ni police bi léegi dafa politique maanaam dañu koy manipuler li politiciens yi bëgg loolu lay def est-ce que yow boobu gis-gis nga am euh, pour tàmbaleeg actualité bi. Euh, soxla si man amu boobu gis-gis damay xamal Sénégal yëpp mu ngi fi dëkk ñi xam ne ay étranger lañu ne police sénégalaise mooy police bi gën a démocratique ci monde bi yëpp laa wax bon laa wax jëmuma Afrique parce que lii xew Sénégal. li ñuy def alkaati bi te du am dara lu ci topp fii rek la xaw Sénégal xewul feneen bu nee wax ne politique dañu politique ñooñu ko wax dañuy def rek lu neex dañuy wax lu leen neex parce que dañu gisul seen bopp ci loolu ñu naan dañoo politique ci naka waaye yow boo nekkee citoyen sénégalais nga toog ba ni man de damay yaakaar ni maa ngi woo sénégalais yi ne dama bëgg ëllëg ma jiite dëkk bi waaye yow boo bëggee jiite dëkk bi nga xam ne institution bi nga xam ne moo gën a màgg ci institution muy police parce que benn dëkk benn gouvernement mënul gouverner jiite dëkk te amoo police parce que bu du renseignement xam ni xew ci dëkk bi police rek moo na koy jox te yow nga bëgg a jiite di salfaañe li nga xam ne mooy yoonu dëkk bi di def lu neex di woote nit ñi ñëw leen ci lii ñëw leen ci laa te li ngeen di woo yëpp moo di yàq nan def lépp mais loolu yëg nga ëllëg nga bëgg nga ni da nga bëgg a jiite dëkk bi ci naka mais alkaati yi dañoo jàngal dañ jox mission dañu dañ former former ba mu ñu nu former nag pour aar doomu aadama yi aar seen bien doomu aadama bu ñu koy wax ne dañ nga xam ne dañuy respecté luy loi jaar ci yoon waxuñu ay bandi ak ay woyu mais mais mais li tax ñu joxañ leen mooy euh, procès bi amoon euh, euh, keroog ca tribunal dañu wax ni ñooñu dañ doon doxi seeni soxla kenn ku yor marchandise di dem maanaam police xàmmeewul ñi mu war a jàpp ak ñi mu warta jàpp bu xew-xew amee képp ku nekk foofu au mauvais endroit au mauvais moment rek dañuy boole ñëpp taxañ ba noppi yàqal leen seen alal loolaa waral ñu joxañ leen mais soxna si da euh, boo toogee da ngay daani sa doole. Hmm. nga jóg jël say bagage ne da ngay dem daani sa doole. mais fa nga xam ne dafa am coow loo fay wuti mais yow demoo rek pour jaay da dem kay pour yow dugg ca bokk ca kooku la mu wax dafa wax loolu rek mais wóor na wóor yàlla ne loolu mu yore ndax ca biir amul loo xam ne dana gaan doomu aadama te dina xamoon nag benn affaire hmm. ne ñun da yoon dañoo may à partir de l'article dix-neuf et vingt du code de procédure pénale que ni suñu xoolee doomu aadama bi ñu am ci moom doute soupçon mais am nañ droit interpeller ko kooku yoon moo ñu ko may donc ñun ñëwuñu fi pour kii police sénégalaise rek ngay gis ñoo xam ni tey fetal boobu ñu la jox nguur gi moo la ko jox pour nga défendre moom rek yow rek Sénégal la ñu gis ne police boobu yore arme boobu taxaw bu nit dawee ak jaasi ak paaka ak jat jëm ci moom amul droit utiliser arme boobu parce que dañ ni c'est pas proportionnel cela veut dire ni kii jaasi la yore yow fetal nga yore looy def daw mais foofu yi mu am ci àddina kon tey loolu projet boobu amoon tey la fa xew ñun xam nañ ko umpale wuñ ko te lu leer lañ lay wax nii ne ku bëgg jot nguur da ngay am doxin booy doxee ku bëgg jot nguur da nga xam fooy teg sa tànk ak looy wax ak foo jëm ak la nga war a wax da nga war a xal population du question jóg leen ñu xeex jóg leen ñu guerre te la ngay yóbbu moo di damay dóor damay kii dóor leen def leen ni nañu bàyyi discours boobu la xewoon 94 la ko indi xam nañ ko discours bi Abdoulaye Wade di defoon ba muy def meeting am 84 loolu moo fa indi ba ñu rey fa juróom-benn alkaati hmm. mais luñ ci wax est-ce que gis ngeen ku ñu condamné bu ñuy wax le 23 juin 2000 2011 Fodé Ndiaye bopp bi lañ toj te dafa daw dugg ci kër ak fetalam ñu jox ko ñooñu ak est-ce que da ngeen ku ci wax ak yeneen ak yu bëree bëri ñun duñu politique wu ñu defuñu politique eh, ñun dañoo tëddee njaaxaanaay dañuy dox yoon ku newul ci yoon nag daan la teg ci yoon force doit rester à la loi. ñu nekk ñu fi ma sàmba nekk ñu fa dem ba suñu métier la ñuy def dañ koy doxalee ni mu koy doxee ak ni mu yoon fu fekkee dañ am ñu koy salfaañe nañ ko seetee feneen te bàyyi alkaat alors euh, ñu bari itam wax ni alkaati yi dañoo am frustration bu nekk ci seen biir ndax yenn saay état wala autorité yi dañ leen di exposé te bu euh, mbir xewee euh, nettali nañ ma procès boo xam ni ñaari policiers yeeñ fa yóbbu ñu taxaw ci mbiram Mamadou Diop notamment wéet nañu keroog ndax hiérarchie bi daanaka taxawu leen ñoom ñoo mujjee des ci guuta gi ndax yow itam gis-gis booba partagé nga ko loolu d'accord naa ci te gis naa ko te partagé naa ko te dama ko dénoncé tout du benn du ñaar du ñetti yoon parce que boo xawee boo ne Mouhamed Bougaleb ñaata at la def kaso ba fukki at la def ci kaso ñaar ñaar fukk la woon ñu wàññi ko ba mu mat fukk ñu ne dafa tiire bal ci basiru Faye te or am na étudiants yu taxaw ne tiirewul bal tiirewul dara dara te nan nga mën a comprendre que benn policier boo wéet junni étudiant wut ko ak si paaka mais yàlla may nañu jox nañu raison événement yi dépassé tout récemment bu ñu demee def investigation daal ci chambre étudiants yi ñaata fetal lañ fa jëlee ñaata fetal lañ fa jëlee ak ay biyaas ak i paak ak i kuur donc tey jii tey ñun li ñuy laaj dan ko mus laaj autorité bi nay taxaw ñooñu muy alkaati yi parce que nag boo leen yónnee en mission yow autorité bi ko yónnee nga toog sa biir sa bureau di téléphone moom mu exposé wu vraiment doy na waar nga bëgg du ko lâché bu demee buñ ko jàppee na parce que dafa def lii wala def kenn rek moo fi doon def. di ànd ak ay éléments te pourtant gis ngeen la ko dal muy Arouna Sy moom la ñu wax ni moo rey lu Mamadou Diop. Mm. moo commissaire central mu bàyyi bureau ñëw ak yi toog ak ñoom. Mm-hmm. ñu ni char boobu moo jox instruction char bi yëg ñu koy wax dañuy wax leen neex rek char buy pesé trente tonnes bu yéegee ci kaw nii am lu ñu suul la am la ba am dëgg dëgg dëgg man maa nga fool bés boobu dama demoon pour xooli parce que dama jiite mouvement te dama bëgg information. kon nag ba ñu julee tisbaar ba pare Mamadou Diop yàlla na ko yàlla mm-hmm. Mm-hmm. moo ni nañu dem jiyaat génne Abdoulaye Wade dafa mu nekk un président en exercice nan nañ koy génne bi muy daw la daanu fakkastalu ñu ko toppoon ci ay waxam ñoo yëg ci koom kot yi toj dooloo ko mooy a réalité des faits pourtant Harouna Sy la ñu accusé les défenseurs des droits de l'homme dafa admis benn concours boo xam dafa war a dem Nations Unies bu jiite bu bànqaas bu war a jiite di fa fay lu bëri représenté Sénégal mais dañ ko diin dañu def seen campagne bind lettre euh, président de Nations Unies ba ñu jëlee ko fa jële ko fa ba léegi noonu defal ko tegal ko ay sanctions yoo xam ba mu retraité tey jii amul di lépp dañ ko ko sax ci lan ngir bu nekk dañ ko bëgg dañ dañ bëgg a salfaañe pouvoir pour dañ bëgg a wax loo xam ne dara daara dara newu ci dara lool nag tey nag loolu dafay doñ défenseur des droits de l'homme yi nekk Sénégal ñëpp laay wax nag a bàyyiwuma ci ken ñoom su ñu reyee alkaati bi seen yoon newu ci su événement boo xam ne alkaati bi gaañ seen yoon newu ci bu alkaati bi joxoñee laa joxoñ de waxuma mu laal mais joxoñ kenn même bu dee agressé la ñun amu ci droit ndax la fu ñu ko wér. Mm-hmm. alors tey jafe-jafe police lan la wala ñuy ñëw ci démba jax jafe jafe jafe-jafe te ci police bari na benn moo di euh, ji ko toppatoowul leen comme ni ñu leen war a toppatoo sur les beaucoup de plan mm. da ngay gis alkaati boo xam ne tey jii bu demee liggéey pour mu déplacer c'est difficile. tey ji tey da ngay gis alkaat yoo xam ne dañuy liggéey ba retraité pour ñu dugg sax ñu ko tey ji da ngay gis ne vraiment euh, sur le plan euh, solde yooyu yëpp dara daara loo xam ne amu ci lu ju baax tey demal Côte d'Ivoire demal ailleurs Côte d'Ivoire tey dama jox benn exemple boo xam ne tey boo demee formation école de police boo génnee booy génn rek yaa ngi sa kër ak sa ak sa oto jox na la ko donc nga dem partout en Europe les mieux payés mooy les les forces de l'ordre et de défense mais pourquoi ñun Sénégal ñu ni salfaañi lool kon fii liñ leen di fay baaxul. mais demul bay baax jegewu ko xoolal man mi yow parle naa la wax tey loo xam sa kër la. Hmm. brigadier chef de troisième échelon laa la wax. mooy cela veut dire gardien de la paix moo ci échelon mu mujj. Hmm. bi may bi may moom ba ma koy jot avant may jawee deux cent cinquante mille francs de salaire par hmm. tey jii je suis retraité cent cinq ans de service j'ai cent mille francs de pension. mais est-ce que c'est normal. tamay tama nekk di risque ma peau guddeeg bëccëg. marché bu en quatre-vingt-dix bi caar yu dugg ubbi nga xam ne bët bu seet ñu rey fa benn nit mhm. mën nañ fa détaché may xeex guddi ak bëccëg cinq heures du matin vingt trois heures yore sama yatukel di xeex parce que ñamumaa yóbbu sans fetal mais ba tey yàlla indi fu ordre bi tey lu lu ma gaje pourtant bu feet 4 avril amee ñaan la ñuy de ji tey woot woon nañ ma barki dem ba avant ñu may woo di ko plaigner wu le président de cellule bu bu Louga di inspecteur Ndiogu mhm. Colombo nee na ñun dañuy ruus parce que feet 4 avril bu am seen collègues yi retraités yi gendarme ñeneen ñi dañ leen di woo den décorer foofu mm. et ñun on est dans l'oubli les retraités de la police kenn duñu toppatoo faalewuñu yëguñu ñu ñu mais loolu lu waral loolu. dafa mel ni pension rek lañ seq ak yéen. jéeg lañu seq ñun toppatoo ñu faalo day am événement tout récemment dénoncé naa ko école de police bu amee ay ay ñuy génn wala événement on ne nous invite pas. on est dans l'oubli et pourtant au moins dañuy invité yeneen corps bàyyi ñu toppatoo ñu xamuñu sax ñooy ñan. Mm-hmm. te pourtant li xew police li fi am tey bu bu bu xalloo ba defar ba rafet ñun la. Mm-hmm. ñun ñoo defar ba mu rafet ñoom ñu ñëw kon nañu jox considération biñ ñu war a jox respecté ñu. Mm-hmm. parce que ci foofu la war a jógee avant mu ñëw ci civil yi. démb yéen la woon est-ce que problème yi police di jànkonteel mooy poli problème yi fi nekkoon démb yéen seen ay temps wala am na lu ci lu ci saafara wu ci diggante bi lan nekkoon seen problème démb bi ngeen nekkee en activité waaw vraiment am na lu ci lu ci changé bu baax vraiment te loolu dañuy saluer di remercier encore le président de la République Macky Sall il a beaucoup beaucoup fait li mu def li mu def moom vraiment vraiment ñu ngi ko ci sant du ko ci gërëm bu baax parce que bu nga amee évolution tey jii sur le plan salaire beaucoup de choses vraiment à cause de lui lo ci loolu yëpp ci la amee donc tey vraiment ñu dañ ko amal jaaraama tey jii vraiment li ci nekk yëpp moo di moom il a été ancien ministre de l'intérieur xam na li xew lan mooy lan mooy euh, police lan mooy njëriñam ci Sénégal lan lan na koy kii mu jox na ñu cër bi war daal te de telle sorte que ñun fu ñu toll il a eu le courage je le répète dama koy wax tey mënoon naa wax ni bañ ñu dàq 87 kan moo ko def Abdou Diouf na sama sama euh, président de la prison bon kon boog tey su ma ñëwee man yàlla teg ma ci léegi mun naa mënoon naa toog ni la mu defoon baax na mais dafa yëkk di 2 milliards jox ko les rajo mënoon na ko bañ a def. pourtant am na président Macky Sall ah. waaw deux milliards yoo xam ne moom la indemnisé waaw moom la jox pour vraiment euh, ñu ñu ñu jox ko les les mille deux cent soixante quatorze radiés def na ko mën na ko def Abdoulaye Wade bi nga xam dañ koo gunge on on s'est on a tout fait benn événement la def mooy école de police au temps de Ousmane Gom mu woote foofu une grande en grande pompe une réunion pour les radiés ñu def lépp lay def mu naan admission lay wax admission mooy dal koo xam ne ne woon na ci koor bi ñu génne ko ci d'une façon arbitraire waaw. d'une façon arbitraire mu mu ñu war ko dellu si on le réintègre ki ki admis kay mooy ki musul dugg ci koor mm-hmm. mais tey jii daal gàcce nga la ma Macky Sall la ñu wax ci li nga xam ne mu ngi koy def beneen bi aussi moo di tey jii tey bu demee booy wëlbatiku daal di yëkkati les camps de garde la ex policiers yi newoon fa les retraités yore ko réhabiliter les les les maisons là mu wëlbatiku en vingt le vingt deux mars deux mille quinze bi ñu recevoir ambiance mu ni jël leen nan ko jël jëlal seen doon tey li ñu koy xaar rek mooy comme ni def chemin de fer ni mu leen def chemin jox leen seen kayit mu génn le décret qui matériel de la session lañ koy xaar Macky Sall te yaakaar na ñun yaakaar nañ am na xam ne am na kàddoom te bu waxee dafay def hmm. waaw kon kër yooyu may na leen ko mais bien sûr kër yi maye na ko depuis le hmm. 22 mars 2015 bi mu ñu amul woon ay jafe-jafe dëkkuwaay yoo fi yëkkati woon pour yeneen policier non non non amul ñooñu rek la woon. ok c'est-à-dire que boo déggee wax on attend toujours le décret qui matérialise parce que wax moom. Mm. la dañuy wax ba kàddu njiiti réew. Euh, force de loi la. Mm. li ci des kay mooy moo mu mu matérialiser ko par décret. Mm. wane ne man maa ko joxe parce que damay am lu may. wax ah donc ba tey ci ay wax la yem. waaw wax. damay am lu may damay wax am lu may wax aussi ne dafa am loo xam nekk ne ci camp yi. Mm-hmm. li ci nekk ba moo ci biir camp yi du policier retraité rek ñoo dëkk am na ay pénitencier am na ay enseignant partout am ñoo xam ne ñi ngi nekk en activité di fayu seen te dëkk dañu nekk ci biir camp yi parce que amul benn contrôle mm. loolu moom dama koy wax beneen bi aussi moo di certains camps ay Diourbel Kaolack partout am na des inspecteurs de domaine de cadastre dem ci biir camp yi sans autorisation ñu morcé la fa di ko jox ay civil dans dans les dans yaay ko ay civil ñu tabax ci biir camp yi boo demee Diourbel constaté ko tout récemment isnaal lañ ma aussi ne biir camp wu Diourbel ba ñu ngi fay tabax tribunal alors y' a trop d'abus par rapport à ça. Hmm. loo xam ne ñoom ñu ko defal yeneen yeneen yeneen koor yi ñun ñu ngi toog ñu koy def di ñu salfaañi di n'importe quoi te dañu bëgg jox na suñu gëdd di wax Sénégal ne alkaati yi newuñ fi pour xeex les les les les citoyens sénégalais dañ fi nekk pour de protéger leur sécurité. et leur bien mais li ñu dul nangu mooy du ñu nangu mukk agresseur jaay koto yàmba un un drogué def du n'importe quoi ku bëgg réew mi da koy jël noo koy jëlee man néew ma ci néew ma ma sàmba ma demb mais nag attaquer les policiers que korok meeting pur bi maa ngi dégg euh, ku ñuy wax euh, un grand ñu ni mooy euh, l'opposant le plus farouche de Macky Sall wax wax joo xam ni naan bu bu yaakaar ne Macky ne alkaat yi ñoo koy tax muy de de ama de def li muy def day ndax ñun newuñu ak Massamba Deme on protège les citoyens le Macky Sall c' est une institution c' est lui qui dirige le pays donc jox na ko jox cër parce que day prétendre à avoir ce pays là un jour te kenn du ko jëlee nii ni mu ko foogee. Hmm. yow itam mbaa léegi duñ la wax ne yaa ngi yaa ngi tax ci wàllu politique bi est-ce que mm, mm, policiers yi euh, monsieur mm, Keita itam doxee nañu doxin wu tax xëy na citoyens yi mën leen a wekk parce que gis nañu quand même un manque de respect notoire diggante policier ak citoyen tey loolu mooy dëgg waaw man ni soxna si d' abord un dama ni balaa maa tontu ci loolu dama ni. Hmm. man Sénégalais laa fii laa juddoo def naa trente cinq ans police avant police maa ngi dugg le 17 mai 1968 laa armée donc hmm. def corps yooyu waaw tey jii tey nga j'ai le droit ma nekk def politique parce que j'ai ma liberté j'ai retrouvé mes droits civiques et civils kon j'ai le droit de faire la politique. Hmm. et j'ai d'aller avec qui il et je le cache à personne. le 11 novembre 2011 Macky a et le mouvement que j'ai l'honneur de diriger. Mm. nous disons clairement que nous soutenons le président de la République ça je ne m'en cache pas. d'accord leer na ko. que ça plaise ou que ça ne plaise pas nous soutenons le président et nous allons l'accompagner. Ah. s'il est prêt à faire un, une troisième candidature sachez que ce mouvement allez va l'accompagner et nous prenons dinañ jël risque yëpp. incha allah ah bon ah, ah est-ce que du looloo nar a yëngal réew mi nag monsieur Keita. mais du nu ko yëngale man de ah. sam jàng soriwul. est ce que am na ñetteel est ce que am na droit def trois troisième candidature. ma ni dama ni soxna si. Hmm. sam jàng soriwul. mais nag moom bi mu fi ñëwee il a trouvé une constitution qui dit que le droit de faire plus de deux mandats de sept ans euh, euh, au delà de sept ans mais bi mu ñëwee aussi il a changé il a voulu faire cinq ans le conseil constitutionnel amoo ci droit. mooy fonctionner c'est un changer le constat mais actuellement il est en train de faire un mandat je pose la question de sept ans ou de cinq ans je pense que c'est un mandat de cinq ans. et mm. c'est un premier mandat de cinq ans mais analysons les choses et directement. c'est pas parce que da nga bëgg da nga ko bëgg a jël nga ni da di nit mais boo wóoloo sa bopp nga ni yow nit ñi dañ la top tey yow yaay yëpp yow ñëpp yow la ñu faa mais jaru xeex jaru xuloo et cet appel là que xeex jarul xuloo am nañu carte nañu waaxu dem wote. bu ñu wotee bu ñu ko bëggee jëlee Macky Sall ko fi mais bu ñu toog naan dañuy génn ci mbedd bi di xeex ñooñu leen xeexloo génne wuñ seen papa génne wuñ seen yaay génne wuñ seen seen doom génne wuñu kenn kon seeni doom ña nga feneen bitim réew di liggéey nañu respecté Sénégalais yi li policier aussi damay wax ni du ma wax ni dama ne dañ seet nu wécc mais damay wax ni bu nee mbuxum ñu ne alkaati bi gën a dàq mbuxum a ngi fi fuuf la di oe foor yi ñu fi def mooy ay biraa am milliards la ñuy tabax ak yeneen ak yeneen kon nañ leen bàyyi parce que boo joxee ñu alkaati bi di ko saaga ci mbedd mi di ko def leen mais il est obligé mu réagir dañu am ay mbokk dañu am ay soxna dañu am papa am yaay mm-hmm. tey kon gisoo daal ci doxinu policier yi lu war a mën a expliquer manque de respect bi ñuy nemmeeku yenn saay buñ ko méngalee peut-être ak yeneen corps. mais ma yeneen corps yan ngay wax. ñaari koor moo fi nekk. gendarmerie gendarmerie. waaw gendarmerie tey xam nga man li ma gën a metti mooy gendarmerie. ak ñun ñooy def sécurité des personnes et leurs biens. Mm-hmm. ñun ñooy jël risques yi. kan nga fi gis muy monter cinq heures du matin di wàcc vingt trois heures kan ngay gis muy jalonné toog ay heures yi heure taxaw fa ñu taxaw kan ngay gis boo amee boo amee difficulté nga daw ne dimbali ma ainsi de suite ainsi de suite lu xew ñu ni police wa tey nga ba naan manque de respect lan mooy manque de respect alkaati bi buy def liggéeyam ne la s'il vous plaît monsieur reculez un peu nga ne ne me touchez pas mais ñu bëgg léegi ñu toog leen xool ñu def leen neex suñ balaa ñu ñëw suñ leen war a aar ñu ñëw leen aar leen ba pare ñu ñu manque de respect mais c'est intolérable hmm. kooku on l'accepte pas donc je dis que setaluma alkaati mais ku ci am comportement bu dool doolu on vous remet à l'ordre dañ lay wax carrément dañ lay lii du yoon kilifa yi ñu am xam nañ ko tey jii tey mm, euh, Bokar Seydou Yàgg muy diriger la police nationale l'inspecteur général Bokar Seydou le général de division Moussa Fall mais dañ leen di saaga guddeeg bëccëg qu'est-ce mais duñ def seen liggéey duñ jox ay instruction pour ñu def seen liggéey mais man nañuy def dañuy dellusiwaat à la raison suñu liggéey dañ ko def léegi ñun on ne fait pas de la politique en faisant notre métier ñu li ñun retraité am nañ droit wax politique mais ñu nekk bi defuñu politique ñu ngi def politique sax parce que autorisé leen ñu wote ñooñu ñoo boo dee salfaañe di leen saaga nga yaakaar dinañ dem dina wote mais ils n'auront pas confiance en toi c'est ça la situation hmm. alors euh, syndicat police itam doléance bu yàgg la euh, ci <laughs> euh, Sénégal nga porté ko yow itam boobule combat bu ñu amoon syndicat tey ñoom policiers yi lan la mën a changer ci seen nekkin wala ci seen doxalin waaw est-ce que c'est normal police corps civil la police corps civil la du corps militaire pourquoi Afrique yëpp am syndicat le monde te police amul amoon nañ ko nag en 1960 bi ñu jël indépendance la police sénégalaise était syndiquée parce que statut colon bi ñu fi fekk lañu jël statut boobu moo ñu may droit à syndiquer lan moo salfaañe ba ñuy dindi dindi ko tout simplement moom ak Mamadou Dia dégguwu ñoon xuloo bu metti il fallait que mu dindi gouvernement Mamadou Dia Lamine Gueye menoon président de l' assemblée nationale ne day wote une motion de censure Wade Joojo Ndiaye proche de Dia ministre de l' alors daal di jox alkaati instruction bu kenn yegg assemblée ben député Lamine Gueye ji waaw député këram pouvoir de la république fi motion de avocat nekk wote la motion de censure quand bi Senghor amee le dessus nag léegi mu ne voilà alkaati dañu doon xeex dafa leen dañu bëggoon mais général de Gaulle ko boo ko defee doo fi de soixante douze heures parce que kenn mënul gouverner sans la police parce qu'il faut les renseignements mu ne ko jëlal beneen moyen en soixante six mu change statut bi ak Ousmane Camara le procureur Ousmane Camara qui était directeur général la police nationale mu andi le syndicalisme léegi nag daf ñu militariser ñu et depuis lors droit yi war a jox ñu quand quelqu'un tu as militarisé par war a am la pension militaire depuis 1966 mu toog bu 78 doo ko jël le décret d'application 78 148 du 13 février 78 pour ñuy fayu la pension militaire mu xam ni 25 ans am nga droit pension complète su la neexee nga bàyyi su la neexee nga toog. soo toogee ak yu ñu ci teg rek dal na ko war a calculer au mais ba léegi depuis lors on ne nous l'applique pas le nouveau statut bi Wade ñëw aussi quarante et un bis euh, arti on ne nous l'applique pas mais ñun est-ce que gisuñu ci mbedd bi ñu manifester pourtant am na ñoo xam ne bu ñu leen wàññilee tuuti hmm. la faim mais donc le syndicat dafa am droit police dafa am droit syndicat c'est les corps de défense l'armée et la gendarmerie ñoom war ñu am c'est parce que des ko war a am parce que dañuy saaga mënuñu wax dañuy ja dañuy jiiñ lu ne mënuñu wax parce que on est militaire

yu neex la wala yu naqadi yan mooy daal événement phare yi nga xam ne tey bu ñu doon retrasé jaar-jaaru police nationale euh, ci yooyu la ñuy teg baaraam. bon man comme Senghor laay commencé. Senghor moom pour moom li ñu am ci moom donc lenn la moo di euh, moo di jënd na sunu euh, syndicat bi ñu arom militaire ñu amuñu benn avantage ci moom dara amul loo xam tout décret lu mu jël yëpp. joxuñu dara amuñu benn droit daf ko spolier ba korok muy génn vingt ans de pouvoir la police amul lu mu bénéficié wu ci Senghor dara muy benn moo di lim fitoog toog yëpp à la tête la police am musul am un commissaire wala keneen toujours c'est des administrateurs ñoo fa newoon di diriger police. Ah, du ay policiers ñoo ko doon jiite. déedéet Senghor ba mu dem la vingt ans. dama hmm. ba mu dem ba mu dem. ay administrateur civil ñoo fa nekk ay procureur la doon désigné ñoo doon nekk ñoo doon diriger police ñoo doon nekk directeur général la police. xanaa police amul woon ku ko mën a jiite booba jamono. ah mais bien sûr mais nag noonu la moom. Hmm. <laughs> moom noonu la ko comme que ñooy désigné kay ñu leen neex désigné parce que manque de confiance la woon. waaw manque de confiance par rapport rek li xawoon moom ak Mamadou Dia. Hmm. mu yaakaar ni ñun dañu àndoon di gunge Mamadou Dia ñun dañoo déglu instruction comme Antoine Edouard Félix Diome joxoon tey jii instruction policiers yi dañ koy respecté. Hmm. loolu dong la. ah dafa soupçonné woon police ne Mamadou Dia lañ gën a jox bopp. voilà très bien. lan moo andi lan moo andi euh, la dissolution de la garde républicaine garde républicaine aussi c'était rattaché au ministère de l'intérieur. Hmm. alors mu yaakaaroon ils leen joxe ordre ñu jógee Thiès pour ñëw Dakar ñu c' est les gendarmes qui les ont arrêtés à Diamniadio mujj ñu remonté mais mënul woon dàq mais dafa def benn motif en 1968 grève générale boobu amoon ba Senghor doon wax naan tiitu ma leen mu leen maa xoqatal bon ñëpp les tous les corps ñoo intervenir euh, à à l' université Cheikh Anta Diop mais corps ba ñu demee bay def le bilan dañ ni dafa génne lu fa nekk rek c' est la garde républicaine ci la jaaree en 69 mu un grand ah. corps de l'État bi nga xam ne dañu tey ji fu ñu existé woon les événements de la Casamance n'auront jamais lieu parce que dañu ceinture woon toute la frontière ñoom aussi ñoo nekkoon à la présidence parce que bi ñu jëlee foofu dañuy fa indi armée hmm. c'est le corps de la garde qui assurait la garde présidentielle waaw donc Senghor loolu la fa nekk. d'accord léegi une petite parenthèse hmm. euh, euh, policier jiite police wala un administrateur civil lan mooy différence bi ndax dafa am lu leen wutale mais bien sûr. Mm. yow boo nekkul mais boo newul boo newul ci bi. boo newul ci corps bi xamoo métier corps bi xamoo lu ñuy dund. xamoo réalité yi réalité nan nga nan ko en tant que administrateur. mu ngi mel ne tey jii rek nga jël commissaire nommé ko gouverneur. mais c'est la même situation donc ñun li ñu bëggoon moo di un administrateur avec il y une grande différence donc Senghor mm. moom musul jox gëdd musul jox benn considération la police sénégalaise. d'accord c'est la preuve am na benn paa bu ma musa nettali. Hmm. ne bu nu musaan sol seen kii bay ñëw di def tour di def ronde près du palais Senghor bu yéegee noonu ci kaw bu gis teen day il se pose la mais la. <laughs> bu nu ko waxee bu bu waxee mu ne eh noonu lañ fi joge ma fekk naan rek benn événement aussi naa la ko nettali. 1973 hmm. 1973 euh, bien sûr c'est ça hmm. euh, mani Senghor benn yoon boobu la musa visiter. lu mu def lu mu def loo xam mën naa ko wax ne jërëjëf musa dem police dem au camp tropical bi nekk Thiès ñëw seet si na hmm. mais da mu que xamuloon sax luy alkaati parce que ba mu demee daf daf ñu confondre à des militaires au lieu de parler de police il a parlé soldats sous-officiers ainsi de suite donc loolu daal la defagul sama loolu la fekk la fekk pour quelque chose de positif. Hmm. rendre la visite parce que bi bi soixante ba léegi c' est le seul président qui est allé des policiers. d' Mm-hmm. léegi ban beneen événement waaw. ba Abdou Diouf moom daf ñoo toroxal. Hmm? daf ah oui. kon moom tànki Senghor la topp. daf ñoo toroxal six mille six cent soixante cinq policiers radiés defuñu waxuñu affaire boo xam ne affaire bu ñuy wax Baba Ndiaye un grand délinquant notoire di écumer bijoutier di leen attaqué di leen dóor ba ñu jàpp ko. entendre ko sûreté urbaine defeere ko fukki at fukki at ak juróom def ko euh, prison dee ñu ni ñoom la 1982 moom la ñoom moom police ñeen rey ñu enquêté interpellé policiers yoo ko jàppoon ak ñu ko entendre ñu rendre euh, le tribunal rendre verdict en 1982 non lieu médecin bi ne il est mort mu am ken laalu ko mais. mort naturelle mort naturelle bi ñu bëggee dàq ñun ba xam ne teg nañu euh, deal bi moom ak la les institutions euh, FMI Banque mondiale alors ils ont fait revenir rasser l'affaire Baba Ndiaye donc c'est une justice sous ordre encore. ñu indiwaat ko en quatre-vingt-deux c'est loolu moo tax waa commissariat central quelques éléments génn Diourbel quelques éléments ak quelques éléments du jéemi de Thiès pourquoi ñu boole ñëpp taxañ parce que xam nañu ñett yooyu mënuñu def la jàpp wulee parce que mille et quelques la ñu waroon dàqaat loolu moo indi la la suspension treize quatorze et la la quatre-vingt-sept vingt-sept vote euh, quatre-vingt-sept quatorze voté le vingt-huit avril pour ñu rajo six mille jigéen yu dem ñaan baat ay ay xale yi suñu doom yi parce que mëntuñ leen fayal ñoo xam dañ leen xam naa ñoo xam ni après la radiation sax c'est ay videur de force na ne woon parce que il fallait ñu dundal seen doole c'était vraiment la misère yàlla même yoo xam ne ay suicide lañu ku mel noonu nag daf ñu toroxal mais lan la ñuy daf ñu toroxal te ab defaluñu dara. Hmm. voilà Abdoulaye Wade moom dañ koo gunge dañ koo gunge dem nañ bo au même bi ñuy wote. on a porté des soupçons sur des policiers y a même des commissaires yoo xam dañ leen relevé jëgal jël leen fañ ne woon ndax loolu ñu courage da jàppale Abdoulaye Wade mais moom ba mu gagné lu mu def y a que des promesses non tenues il n'a rien sinon le nouveau statut bi mu defal te nouveau statut bi ñun par exemple brigadier chef on devait prendre la retraite hmm. en 2002 maintenir nous par notre circulaire de l'ancien directeur général Cheikhou Cissé trois ans après moom mu jël décret Abdoulaye Wade 1259 ne on vous arrête à cinquante cinq ans mais statut boobu donc on on fait partie de cet statut mais bi nekk bi mu nekk effectif le vingt huit vingt huit mai deux mille neuf mais on a laissé en rade ba fii may wax yow nii on n'est pas pris en compte dans le nouveau statut. boolewuñ leen ci. ba léegi boolewuñ ci on a aucun aucun avantage. ndax lan. c'est comme là ah mais parce que parce que tout simplement le vingt huit mai deux mille neuf la jël. te ñun ñu ngi retraité en deux mille cinq après trois ans de maintien cinq ans. Hmm. au lieu qu'il y ait une date d'effectivité ci nouveau décret bi. Hmm. il a tenu la date de signature tient euh, moo date de signature. et hmm. date de ah rétroactiful daal pour mën leen boole loolu yëpp on se de ça donc moom la leen defal absolument rien du tout. te da leen a digoon ne ci boole. mais non non du dikk cela dire que ni bim ñu maintenir en deux deux mille cinq ça fait trois ans. mu ne nag léegi le corps des gardiens de la paix ceux qui le composaient deviennent des agents de police et s'arrêtent pour aller à à cinquante cinq ans ils vont à la retraite hmm. commissaire yi ñi doon def cinquante cinq ans ñu wëleel ba soixante ans ouais. mais donc on fait partie d'une façon obligation parce que hmm. du ci ñu contrat dañu maintenir oh, ouais. mais euh, donc ils n'ont pas respecté leur engagement tout hmm. simplement parce que Abdoulaye Wade a pris la date de signature le 28 mai 2009 voilà pourquoi on est on est on est kii loolu la beneen bi aussi un constat de fait euh, bi devenir euh, quand le statut est devenu effectif de 2009 tous ceux qui devaient avancer ont été rétrogradés pour le simple fait que dañuy il avance à l'indice au lieu du grade man ma j'ai posé la question au ministre Ousmane Ngom où est que dans quel monde nous sommes fan nga monsieur nit yoo xam il accède il accède d'abord à l'indice avant d'aller au grade on est nommé au grade pour accéder à l'indice de ce grade. dañoo dëpp yëf yi. dañ ko dëpp donc ñëpp lañ dégra euh, la ñu rétrogradé donc boobu ba léegi nag par conséquent léegi maa. Euh, loolu ñàkk xam la wala tayeef la. non tayef la parce que maa ngi xool wax naa ko coow naa ko wax naa ko fu ne ci kanamu DG donc euh, police la différence qu'il y a entre nous et les gendarmes je le dis hein, parce que critique au moins les policiers nos autorités veulent construire un bâtiment en commençant par le haut et descendre vers le bas day daanu. Hmm. les gendarmes au contraire ils passent à construire du bas pour aller vers parce que boo boo salfaañee ñi nga xam ñooy nekk sur le terrain joxoo leen benn gëdd mais doy na war avec Collin on a constaté ça bi mu nekkee fii pour ñu am l'ennemi de logement quand il a demandé à l'autorité de mais ñun xam nga ñaata lañ joxoon quinze mille francs ñoom ñu jël la gros lot mais Collin moo leen wax ne yéen du ngeen yéen ngi seen bureau ñii di xeex guddeeg bëccëg nekk ci bedd bi ngeen bëgg leen salfaañe. Jean Collin voilà Jean Collin en tant que donc loolu mooy problème bi. mais léegi yéen ak gendarme yi la ñu gis sur le terrain lan moo différencier seen liggéey lan moo leen wutale non lu ñu wutal dara c'est que on assure la sécurité des personnes et leurs biens cela veut dire ni ko texte bi waxee moo di dans l'agglomération comme par exemple dans Dakar et là son agglomération euh, fu ñu tabax police fu ñu tabax poste de police rek c'est les policiers qui sont compétents. Hmm. voilà donc en nord d'agglomération c'est les gendarmes qui sont compétents maintenant bu ñu demee affaire bi salfaañi et que les effectifs mais ils peuvent rejoindre la police pour que ensemble ñu def les les la même mission bien qu'ils soient mm-hmm. militaires mais nous avons la les mêmes missions. d'accord mm-hmm. alors euh, lan nga gis tey ni moom la ñu war a defal euh, corps bu police loo xam ni daal vraiment lu mënta ñàkk la wax nga su Diouf su Wade mais su le président Macky Sall lan nga jàpp ne xëy na moom la ñu war a jubbanti tey. waaw li ñuy Macky mi ngi def effort yu extraordinaire parce que tey boo constaté nga xool yow sa bopp en tant que citoyen gis nga oto yi mu bëree gis nga la tenue bleue là que nous avons c'est avec Macky quand il était ministre de l'intérieur parce que on avait des tenues kaki lañ ñoon sol ñun mhm. ay kaki bleu bu ñëwee c'est avec Macky te loolu yëpp vraiment c'est des avantages tey jii tey la charge de police des policiers yokk na bu baax les indemnités de logement aussi yokk na tout ça c' est avec Macky Sall ça on le dit je le dis haut et fort parce que man j'avais une indemnité de logement de vingt cinq mille francs <laughs> tey tey tey je ne vais pas dire ce qu'ils ont mais tey euh, alhamdulilah rabbil vraiment y' a plus de considération ak yooyu loolu euh, de des des officiers ak yeneen ak yeneen ak les corps des commissaires comme ça se passe dans l' mm. vraiment ñu def ko des concours professionnels ñu nekk ci ñu permettre leen wala bu ñu ko mënul ñu def un grand plus grand nombre ci nga xam ne ñoo nekk ci biir pour ñuy passer de grade en grade moo gën a guma ñuy jël ay civil indi leen vraiment ñuy kii il peuvent mën nañu jël moyen alors avantage yi nga xam ils sont des gens dans le corps buñ s'ils veulent être officier ou commissaire de police loolu daal je pense que hmm. loolu aussi avantage li boo xam ils ont plus de professionnalisme loolu aussi vraiment lu baax a baax la waaw loolu daal c'est extrêmement important hmm. gën leen a aar gën kii jox leen seen gëdd bi war daal qu'on les protège et c'est extrêmement important parce que loolu aussi lu am solo la hmm. bi mu wax sama bopp laa aussi retraite di interpeller loo xam ni 22 mars 2015 dem euh, le vingt euh, le onze novembre deux mille onze bi ñu tase wax xun ko ba mu jël engagement le vingt deux mars deux mille onze bi mu jël soir am répété na ko mooy suñu droit yi nañu ko jox c'est-à-dire la pension militaire euh, ñu réintégrer ce qui a à cinquante cinq ans dans le nouveau statut alors révaloriser le le statut des anciens Euh, pour ñu am avantage ci nouveau statut bi et beneen bi aussi charge de police bi comme le prime des enseignants il avait promis de nous reverser à quel pourcentage moom moo ko yore beneen bi aussi surtout surtout bi gën a am importance mooy dafa wax def session ne jël leen logement yi jël leen ma may leen donc na ko matérialiser parce que kenn xamul ëllëg nu muy demee te ñooñu ñu ngi may wo guddeeg bëccëg vraiment ils sont def na ko tout récemment avec les chemins seen i këyit donc loolu je pense que yàlla ko fi teg def décret boobu loolu daal. Mm. c'est l'appel que je lance euh, à l'endroit de son excellence Macky Sall. yenn saa ñu joxoñ tam problème de formation ci police euh, nationale ndax yow gis nga ni am na vraiment foo xam ne euh, formation bi di tàggat bi sokke na fa. on a la meilleure formation daal de de toutes les nit ñi dañu wax leen neex rek ñoom lan mooy ci ñoom seen formation lu wax naan formation est-ce que ñun dinañ toog bi mais yooyu suñu yoon newu ci ñun on est formé en matière de droit man je parler mën naa la wax texte de loi yëpp ak tout tout tout te duma ci kim benn kayit pour nous former yëpp la formation ak yu tey benn la. mais ba lan mooy différence bi. waaw ah, laaj naa la ko. <laughs> déedéet mais c'est le professeurs nous avons des professeurs qui nous ont enseigné c'est les mêmes professeurs. d'accord. qui continuent enseigner à l'école de police. Mm. on a l'école de police c'est l'école parce que nous étions la première école de police boo xam ne Afrique rek ñun fi la ñu doon hmm. waaw donc aujourd'hui tey bu ñu toogee naan ki c'est parce que dañuy def leen neex rek parce que nit ki bu fekkee yow da nga bëgg a ñëw ci alkaati bi ne ko defal ma lii ba pare ne ko yaa ko ko won yoon wu moom kii di def mission nga ne ko lii ngay wax wala lii ngay def fii ngay jaaree mais loolu mënul jàll. nous avons la meilleure police parce que bi ñuy dàq en 87 je dis bien. Hmm. nous avons étions la poli première police africaine et cinquième mondiale nous avons même dépassé la France beneen on était la police la police intellectuelle le commissaire Sadio ko vous entendez là di ko dégg muy wax mais kooku xam nga fu mu hmm. Sorbonne le commissaire Toto Sarr Senghor le monde la ko jëlee. Eh, ah samba si mais on avait le maire corps ba léegi ci la nekk tey jii tey ku dul jum kudul juum amul on peut vraiment juum nga juum ñu da nga juum ñu rectifier la mais du buñ doog naan baaxul nii nangam nangam si du ñu wéy ci seen waaw ñun lu waal la ñu jàngal du waal la ñu ku jaar ci yoon ñu bala ku jàng xelfan yoon dañ la teg yoon nañ ko waxee feneen fudul foofu. Hmm. alkaati bi du tëj du kii alkaati bi day déglu joxe ñoom waa ñay tëj ak ñu xam nañ leen donc ñun duñu falfaañi duñu neexal kenn nit dañ def ñu liggéey li wër lool lool te te ci loolu lañ nekk nañu bàyyi xale yu ñuy liggéey ils très bonne formation seen formation baax na vraiment lii ñu nekk ay critiques yi war a nekk di wax wax ju ñaaw ci ñoom dañuy mbuxum ak dañuy nangam ni ngi dugg na fii alkaat yi naanaa te gis nañ fa ñuy gën a mbuxumee te yow soxna si jàng nga dan la wax ni la la véritable corruption c'est celui qui l'incident dans le budget qui nous appartient et ce qui se passe allez aux Almadies faire des contrôles allez Heure allez aux à Saly nga xool ñan ñoo fa ay bilan à milliards ñan ñoo yor kii c'est ça la situation les policiers ne sont pas des corrompus c'est pas un arrangement qu'on dit un corrompu donc moi je dis que encore dañu bàyyi bàyyi leen ñu ñu jàng ñi ngi jëm foo xam ne ëllëg war nañu xalaataat seen bopp ne eh, élection yi di ñëw élection yi am importance lay doon. Mm-hmm. élection yoo xam ne vraiment mën na yëngatu à tout bord. parce que foofu laay bëgg a ñëw ñu fi nekk bëgguñu jàmm ku mm. bëggul jàmm nag. Mm. mais mënoo am jàmm. alkaati bi nag par la force des choses dana def mission mission mooy assurer la sécurité des personnes et leurs biens on est on bu ko kenn waxati nag. bu ñu wax naan nangam ak nangam parce que la may décor ak meeting pur sa waa jooju wax ko du ma tudd turam de par respect waa jooju ne alkaati nag bu bu ñu yaakaar ne alka Macky bu yaakaar ne alkaati gendarme bi ñooy nangam nangam ñu def déedéet yow yow kàddu yooyu ah. bëggoo ko tudd waaye ah. man naa ko tudd Ousmane Sonko la kàddoom yooyu yow da nga ko jàppee menace pour la police mais mais menace la mais menace la mm. comment pouvez-vous imaginer que ñu ne le président de la République qui est une institution que les forces de chargées de sa sécurité sont là pour pour pour dire pour nangam pour circuler ak ils vont le protéger danga nous allons le protéger que ça oui Abdou Diouf il a toujours sa garde Abdoulaye Wade il a sa garde donc par conséquent lui en activité noonu dañ koy garder ñun nag ñu fi def benn abus moom au contraire nañ xoolaatal boppam baax et sur le langage les propos qu'il lance parce que booy ne de ëllëg yaakaar naa dinaa jot réew mi mais war nga am propos yoo xam ne ñi nga xam ne ëllëg il faut ñu liggéey ñoom par la force mënoo ci dara parce que doo gouverner sans gendarme ni police ni militaire donc war nga leen jox gëdd bu ngeen jox les instructions c'est les instructions dafa lii jaaral donc na xam wax ju muy wax te ko contrôler ko ñun la muy jaww ci ñun suñu yoon newu ci la muy wax suñu yoon newu ci waaw moom ci lu man de Cheikh naa Keita bu may dugg sama tànk xam naa ko te fu ma dugg bu ne yow la man la loolu c'est clair la. d'accord léegi wax nga ko sànq ñoo ngi jëm si euh, ay euh, mbir yu xëy na euh, ànd ak incertitude kenn xamul luy xew ëllëg gannaaw yàlla Sénégal tàmm nag bu jëmee ci élection yenn saa yëf yu yëngu lool opposition bi aussi bu yëngalee police ñaare dana ko yëg lool ndax moom moo war a nekk sur le terrain ak yeneen takk der yi xëy na lan ngay dénk tey policiers quitté probablement ñu war a impliqué wu bu baax a baax ci situation politique bi jëm notamment 2024 lan nga leen di dénk comme conseil wala loo leen di dolli. waaw man euh, seen doyen la seen ancien la am naa ci biir ay doom ay jarbaat ñëpp seen ñëpp samay doom seen jarbaat di sant di wax rek de dafa am lu leen ëmb li leen tënk moo di seen mission régalienne moo di ngeen aar doomu aadama yi aar li ñu yore ak seen i bagages ba nga xam ni yoon lim leen may jaar leen ci loolu bu leen def benn abi bu leen def benn abi door waru leen saaga waru leen aar doomu aadama moo leen war ki nga xam ne dafa nekk pour ba salfaañe loo xam du yoon jàpp leen teg ko ci yoon amul dóor amul saaga. Mm, yenn saa yi door ñu def yoo xam ne itam euh, du bokk ci respecté ak ak yelleef doomu aadama. mani soxla si bu dóor wékk amee. Mm. man ku ñëw fekk ma fa ma taxaw ma ne ko may wax ak moom ci teey mm. mu saaga ma wala door ma mais il faut ma ab ma utiliser la force parce que loolu yàlla moo yoon moo ma ko may. ah mais mais mais monsieur gis nañ fi image yoo xam ne moom policier ba buy ñëw du sax wax day ñëw rek taxañ la toroxal la eh, sànni ci oto bi loolu gis nañ ko. xam nga yow image nga gis. waaw mais la la ma wax ba image ba am yow déggoo ko xoo ko. Mm. bu joxoñee saaga wala mu menacé. wala mu défier te nangu ñu jël ñu jël loolu. Hmm. bu boobaa en ce moment nga ni gisoo lu la alkaati wala gendarme bu la mu def or il est dans la légalité mais demal France nga yëkkati paak jëm ci alkaati ba xam nu mu lay def wala nga wax yenn wax yenn kàddu yu ñaaw yi mais donc kon tey jii tey lii mën a am ba am moo di alkaati bi daal liggéeyam lay def li ma leen di conseiller daal. moo di ñuy taskatu xibaar sax yenn saa ñu am ak ñoom jafe-jafe. waaw waaw d'accord naa. xam naa moom nañ ci suñuy naataango bañ mujjee waaw loolu je suis d'accord ay abi moom am na. waaw déggoo li mu wax dama ni. Mhm. Ah, abi foo ko gis am na fa. Mhm. parce que aussi amoon na nekk abi de pouvoir abi de quoi parce que sa fonction sa bopp ak lu mu munti doon. Mhm. ak moom même boo sottee yore ka nga bind ñu bind am na foo xam ne limite la sur le alkaid bi monsieur. s'il vous le journal ou nangam nangam taxawal mais au Sénégal aussi ma je dis dama exercer am da ngay wax journaliste mu ne la non je ne le fais pas mais. yow tey dama lay wax ni du analyse profonde la ñu def sur les situations d'affaires. Mm-hmm. et c'est extrêmement important. parce que nit ki da nga yegg foo xam ni alors di tu comprends pas xoolal en 87 bi ñu dàqee la presse li ñu wax ak li ñu génne ak li ñu wax yëpp ils n'ont pas fait une analyse profonde waxuñu ba léegi lan ak lan moo ko indi pourtant da ngay dox ci mbedd bi ñu dàqee ñu wax la wax ju ñaaw te du réagit pas donc tey jii tey daal li muy wax daal moo di élection yi daal ñaan jàmm la ñuy ñaan te samay samay doom lañu samay jarbaat samay sët vraiment ñi ngi dem élection. nañuy xam nañuy demee ak nu ñuy demee parce que li wër ba wóor moo di ala kulli xaal ki war a falu dana falu fi war a te jàll teg kii doon fi teg yàllaay fal nit ñi nag ay wax la ñu nekk nag mais nañu aussi considérer aussi ne ñii di def dañ leen di aar néew ñu fi pour xeex leen wala pour dóor leen dañ la ñëw pour aar leen ñi xam ne ay honnête citoyen ne am na ñoo xam ne dañ ciy profil di def nii dugg na fii nangam dugg na di wax loolu ay mais loolu nag moom la ñu war a éviter mais en tout cas daal ma c'est le c'est le message que je lance mais faut pas aussi ñu ni alkaati yi dañ fi nekkal Macky Sall wala dañ fi nekkal Macky nekk ñu fi Macky de c'est bi dañ fi nekk pour liggéey dañu nekk pour liggéey loolu mooy problème le préfet bu ne autorisé naa lii nañ ko nangu mais nag boo nee damay forcer mais boo forcer il faut que force reste à la loi loolu rek la nekkee mais leen mënu ci am. Hmm. alkaati yi duñu noonu kenn noonoowuñu kenn. newuñu pour kenn bundu xataluñ kenn waaye nag ku du teg ku déggu newul ci yoon tegu woo ci yoon def lu yoon antaane dana teg ci yoon. Hmm. waaw jërëjëf euh, monsieur euh, Cheikhna Keita ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yow yaa jiite mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal brigadier chef de gardiens de la paix à la retraite également ñu bàyyi la rek nga tàggoog auditeurs yi ñu doon déglu. waaw maa ngi lay gërëm ci invitation bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni ñun métier bi dañ koo tànn ñu ko pour wut xaalis tànnuñu ko dañ ko wut par conviction. parce que damay dellu ca wax Abdou sëñ Abdou Aziz Dabakh Malick radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla dekkaral leeram fu mu tëdd. Mm-hmm. Eh, ba ñu dàqee lam ñu waxoon bañ ko seetee bañ ko seetee dafa ni bàyyi leen ma woo Abdou juuf woo ko Abdou jox ko convocation ne ko ña woo invitation ëllëg mu dem euh, ña mu jeg ñay jege woon Abdou Diouf du ma tudd seen ñoo ne ko loolu mënul am te mënoo deltu ginnaaw ci li nga jël ñu boole ko ak Colin mu ne ko man Colin taxumaa jóg wàññeeku ci ëllëg sa mu Euh, ñiy dellu si baax na mais ñi ni jëlaatul nañu xam ne ka leen def loolu dana leen dugal fenn te am na 93 dugal na leen ci créé na une police municipale beneen bi mu ni su ma newoon xale di wut métier métier bii def mais ñu ne ah, ko am na yenn mu ni déedéet dama leen bëgg xamal ne alkaati mooy métier bi gën ci métier yi parce que mission bi ngeen def mooy li malaaka yi yàlla ni muy sant malaaka yi ñëw suuf di ko def dama ko ñëw dama ko ñëw donc mu ni man mii di wax ak yéen waaw ak lu ma yàlla may ak lu mu def ci man su ma tëddee nelaw yéen la parce que su ma demee ci jàkk ju jumaa ji su ma demee ñeneen demee église parce que yéen yow di aar te c'est la réalité des faits. Mhm. loolu loolu am donc tey jii tey dama ni dama bëgg Sénégal yi ne alkaati du seen du ay seen def ñu leen noon alkaati yi ñëwuñu fi pour leen bundaxatal ñëwuñu fi pour leen dool alkaati yi du ñëw pour aar leen. di sàmm seen ngeen sàmm seen i alal ba nga xam ne def ko tu ñaawteef yi duñ leen mënal dara loolu mooy suñu métier looloo tax ñu jóg te nañu wóolu alkaat yi parce que alkaat yi doyloon na leen wóolu na leen incha allah liggéey bi dañ ko def te xam na ne aussi ne élection yi di ñëw bu soobee yàlla dañ ko aar nañ ko war a aaree te benn benn incha allah ñu gis kenn def na nii wala def ne waaye ñi nga xam ne yor nañ seen kàddu yore seen i parti nañu xam na ñuy waxee ak ni ñuy demee c'est extrêmement important mm-hmm. ñëpp c'est important nañ ko waxee vraiment bañ a jël yëpp ko ci ñoom ñooy tax léegi lii di am alkaat yi defuñu dara dañuy def seen liggéey maa ngi sant yëpp di gërëm yëpp merci jërëjëf ñu ngi lay sant tam di la gërëm di sant ak gërëm ñu ñu doon teewlu euh, ci euh, émission démb ak tay mun ngeen ko dégluwaat euh, ci TV officiel suñu chaîne ci YouTube di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen gërëm jaawu jàllo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi ñu yendoog jàmm kaddu gi ñu yendoog jàmm kaddu gi ñu yendoog jàmm gi ñu yendoog jàmm gi ñu jàmm kaddu gi